dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéene kaay ñu xëyandoo Nguuda Fall Kane mi nga xam ne ay jamono moo jiite woon seen dif moo xëy fangam ci yéene kaay gii di réew mi ko di quotidien wax xalaatam ci covid 19 bi wax xalaatam ci lu jëm ci wàllum ger gi nga xam ne nee na cobbay ci réew mi daat nay wax ne jamonoy Abdoulaye Wade amutoon benn volonté boo xamante ni tegoon nañ ko ngir xeex jëm ci wàllum blanchiment d'argent nee na tamit jamonoy Abdoulaye Wade amul benn politique boo xam ne doon nañu ko def ngir na xeex li nga xamante ni moo jëm ci wàllum ger te ger bokk na ci loo xamante ni mën naa naxasal am am réew te lu jara moytu moom Gouda Fall ci yéen kaay gii di réew mi quotidien daan nay wax ne Macky Sall bi mu dikkee daan nay andi OFNAC waaye ay jubbanti yoo xam ne war nañu ko saa a def ndax rapport yi ginnaaw defee liggéeyam maanaam warutoon a jaare ci procureur ba ñuy wax classé 108 dafa waroon a dem directement ci juge bi su defee atte man caa am ci ni mu gën a gaawee wax ci lu jëm ci woppi coronavirus ak ni ñu ko yoree lu jëm ci coronavirus waaye nag bu jeexee beneen pandémie moom ngeen di dégg maanaam pandémie boo xam ne ñëpp lay laal jëm ci mbirum xiif boo xamante ni dina métti ba jékki dayoo yéen kay gi la Tribune ak Libération ñu xëy di ñu xamal naan ñu li am ba dees mooy woppi coronavirus jamono ji ma ngi gën di law ci réew mi ndax lu toll ci benn ci ab semaine ñaar fukk ak ñeent daan ñu ñàkk seen bakkan jamono ji am na ñaar fukk ak benn maanaam ci ay cas grave yéen kay gi di source a xëy nag dikkal ñu ci lu jëm ci wàllum ceeb bi nga xamante ni moom lañ jënd war koo séddale askan bi ak laba paj gi nga xamante ni ñoo ngi ko say wax journal bi nee na dafa am scandale boo xam ne ñoo ko say tudd jamono ji gendarmerie ubbi nañu saab enquête ba tey ci biir yéen kaay gi Omar Faye leeral askan wi nee na ñii nga xamante ni ñoom lañ dénk ceeb bi ñu koy séddale jamono ji jot na sëkk ak barke ñu wax ak ñoom ndax ceeb bi nga xam ne moom lañ yóbbu Rufisque bon na genn xeetu bon goo xamante ni maanaam mën naa rey nit Omar Faye nam ko tuddee ceeb la boo xamante ni assassinat alimentaire lay def yéen kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Seydou Nourou Mbaye di ab virologue la mu xamle moom na soo muytuwulee musiba ma ba kumba girawali gu doy waar man naa dal Sénégal ndax nee na maanaam njobbaxtal gi li ñu wax pic ba léegi ne gu ñu te nag lu toll ci téeméer boo jël 60 pour cent mën nañoo amee coronavirus ci réewum Sénégal te leen rek moo ko waral maanaam bàyyeeku ko ëpp koo xamante ni askan wi bàyyeeku nañ ko ak cas communautaire yi nga xamante ni ma ngi mel ni mal la ci réew mi yéen i kaay gii de laas ñu fekk fa Pape Samba Mboup mu yorog di baleel Macky Sall ngir mu am ñetteelu mandat ci bopp réewum Sénégal l'observateur mu xëy di ñu xamal lan ñu reporté reportage bu BBC bi nga xamante ni defoon na ko fi juin 2019 yëngaloon na jamono ji jamono ji ñoo ngi ci juin 2020 ñu si doon tudd Aliou Sall ak magam Macky Sall ak Frank Timis journal bi nee na boobee maanaam ci fàtte ko fi la jëm Fatou Blondin Diop nee na bii jëm ci mbirum pétrole ak gaz ak mbuxum gi nga xam ne moom lañ si wax mënut a leer ci régime Macky Sall Mamadou Lamine Diallo la mu xam ne nee na mbir mi mënut a leer jamono ji waaye nag bis dina ñëw mu leer nañ ci bopp askanu Sénégal l'observateur na réquisitoire bu procureur Serigne Bassirou Gueye ci Aliou Sall ak Franck Timis ak Macky Sall maanaam mbirum Petro-Tim ba léegi nee na Macky Sall bu waa dikk ñoo dikk këram teg ko loxo maanaam la ñu koy toppee mooy bind loo xamante ne wérul ba pare xotti war njiitu réew mi loolee la ñu koy toppee journal bi di Vox Populi mu xëy ci ñàkk ndox gi nga xam ne mooy jàba jonge ci réew mi Serigne Mbaye Thiam nag moom mi ñu dénk wàllu woowu nee na munut a ñàkk am carte yoo xamante ni force ñu s'ouvrir maanaam nag ñëpp mënuñoo jekk-jekk rek amoonoo ndox yéen kaay gi de la turbine xëy tuddee assemblée nationale ab cas maanaam assemblée xamuñu fan la ñu ko jëlee journal bi nee na la ñu doon bañ ci assemblée yi fi passé yëpp lu ko raw lañ gis ci bii ndax nag coowul ak li coowul foncier bi ñàkku ndox gi dégguñu waa assemblée nationale wax ci benn yoon journal bi di réew mi quotidien nee na Linguère di Kaolack am na ñaari sàmm yoo xam ne dañu leen a fekk ñu xaru takk ak buum ci seen bopp yéen a kaay gii du sunu làmb xëy ci Sa Thiès mi nga xamante ni Gaston Mbengue daf ko proposé woon na ko dama bëgg nga bëri ak Gris Bordeaux rakk Balla Gaye bi nee na pare na ngir bëri ak Gris Bordeaux defal ko affaire